asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Codice de la Strada ñu ngi leen di nuyu lu bari di leen siyaar euh, tey ma indi leen benn vidéo nag bu gàtt ci benn affaire boo xam ni bon ñu baree bari euh, ñun ñëpp daanaka jaar nañ mas nañ cee jaar mooy ngay wootee par exemple ci service client bu Tim wala bu Wind wala questura wala préfecture ñu lay laaj noo tudd noo sant sa codice fiscale léegi nag problème bi ngay am mooy boo koy wax duñ xam loo wax. comme tey ñu ne noo tudd nga ne Mouhamad comme s'écrivait xamoon noo koy épeler famille le spelling bi la ko waxee mooy lettre yi jox jox leen ko lettre par lettre Mouhamad M di Milano nangam loolu foog nga xam ko ku ne war na koo xam sa tur war nga xam noo koy noo koy épeler pour ba pour bañ a perdre perdre de tempo sinon day da ngay dem fa. codice fiscale tamit ku ne war ngaa mokkal sa codice fiscale. ba nga xam ne bi ñu la ko laajee nga mën koo joxe lettre par lettre joxe exemple yi tax ñu man koo xam comprendre bu baax loolu mooy lan mooy comme tey boo nee n bu ne joxe sa code fiscal sa ngay joxe ba ñëw ci lettre n moom mën naa dégg m yow nga wax n mu dégg n moo tax da nga naan n comme Napoli m comme milaano yooyu boo ko dee wax rek ñoom danañ ko xam ba mën ko bind normal erreur du ci am moo tax ma ñëw indil leen lii. bëgg a joxe exemple yi lii lire leen ko bu ko defee ku ci nekk nga xool sa tour ni ko li ko composé nga jëm ko comprendre maîtriser ko ak sa codice fiscale ñu commencé ci lettre A A come Ancona am na ñuy wax A di Ancona au lieu nga wax come muy gudd mën nga wax A di Ancona B di baari ci Bari wala Bologna ci di Como wala Cagliari D di Domodos Domodossola E di Empoli F di Firenze G di Genova Accra man nga wax Accra rek am na ñuy wax hôtel mais jaru ko Accra moom benn la euh, I di imo la I nga Ilunga nga mooy comme gi lettre J ci français J nga ba ne nga rek basta dañ koy xam bu la neexee ne Jolie wala Jersey wala Jesolo waaye nga sax basta Kappa tamit même chose Kappa benn la jarul joxe exemple am na ku ñuy joxe Kursaal waaye Kappa rek baax na. L come Livorno M comme Milano N comme Napoli ñetti lettres ñoo gën a garaaw parce que da ngay wax L waa ji dégg N wala mu dégg M kon L di Livorno M di Milano N di Napoli yooyu tamit lu jar bàyyi xel la euh, ñu jàll O di comme Otranto wala O di Otranto P di Palermo Q di Quarto wala Québec boo ci wax baax na Quarto wala Québec wala Quadro boo ci wax baax na R di Roma S di Savona Salerno Sassari ah T di Torino U di Udine V di Venezia Doppia-V boo ko waxee doy na jarul exemple mais bu la neexee ne Washington mais Doppia-V moom boo ko waxee xam nañ ko X tamit xam nañ X la Y boo ko waxee xam nañ ko Y mooy Y Z moom tamit jarul exemple xam nañ ko moo tax yii dafa jar a jàpp ba pare ngeen xam tamit nii italien bu nekk nommé mooy sa tour comme Mohamed mooy sama nommé cognome mooy sama sant français bu ne nom nom mooy sama sant bu ne français sekk mooy sama nom euh, prénom mooy Mohamed loolu lañ koy ràññee bu baax a baax bu ko defee ki soo ko jógee Sénégal bu ñëwee Italie bañ a juum ci côté boobu ndax gis naa ñu ci def ay erreur yu bari waaw loolu la woon euh, bëggoon rek bu ngeen seetaanee bi ngeen commenté ko aimé ko bu ko defee ñu xam ne yéen a koy suivre jërë ngeen jëf.